الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kon noo ngi ci ñeenteelu guddi ci guddi ramadan aaya bi ñu war mi ngi dugg ci fi suñu borom di tuddé aya yi aju ci koor ñenti aya la waye bi mu tuddé ñetti aya yi daf ca dugal aya bo xamné mi ngi jëm ci ñaan doga andi aya bu mujjiba mu ne ci biir aya yoy loolu kon ab junjula ci ne weeru koor weeru ñaan la weeru ñaan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci addis boo xam ne anas ibnu malik radiallahu anhu moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne salaasu waalidi li waladi wa daawatu saaim wa daawatul maslum yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñetti ñaan suñu borom bu ko dello waye da koy nangu mu ne ñaanu wayju ci doom ñaanu aji wo ñaanu ku ñu toj kon ñaanu aji wo suñu borom tabaraka taala da koy nangu suñu borom tabaraka wa ci bi muy xamle koor mu dugal ci ñaan waaye xamle ci nu ñuy ñaane di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa te mu waxee ak moom mi ngi wax ak jullit yépp waaye di wax ak ñoom ñi nga xam ne dañ leen di yaakaare ak jiite ci diine seen taxawaay ci diine mooy tax lu bari nit ñi buñ ci jaaxlee ci ñoom la ñuy ñëw xam ngeen ne nit ñi ku ñu yaakaaree diine surtout wàllu ñaan dañ la ciy soxla lool dañ ci faral di ñëw ci yow lool nag suñ borom jàngale na ci euh, ka cay dem ak kañuy dem ci moom suñ boroom ne wa iza sa'alaka bu la laajee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog keneen koo xam ne taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa la nit ñi yaakaar ci yow ci jottali diine ji jottali li wàccoon ci moom bula la ibadi samay jam yalla ñepp ay jamam lañ waye jamam yi ko nangul yoyu lay askan la bopam luy doon tontu ba buñ la ko laajee buñ la laajee mbirum suñu borom tabaraku taala manam ku ko bëgg ñaan noy def ndax faaw da ngay dem ci diw sangam mom rek mo la ci mëna ñaanal wala da ngay ci dem ci barab sangam fofu lañ ko wara a ji borom bi ne déedéet tontu bi moy fa inni qaribun man yalla jërta wëri jërta sét na dama ñaan lu ji dama ñaan lu ji jëru ko ngay da dama ñaan rek da la ngay wuti mi ngi fi yow bu borom bi tabaraku taala mi ngay ñaan jégé na la lool ku jégé la fa inni qarib jégé na la ci xam sa mbolé mbir yi dara ump ko ci yow xam na sa lepp sa lepp moko yoré moko doxal waye jégué na lay tam ci nangu sa ñaan lo ñaan rek bu ko sobé fa saasa rek da koy dal di nangu te ñaan googu mu joggé ci yow da fay gëna mat ndax yaakaar ja muy àndal ak sellal ga muy àndal loolu kenn mënu lu cee wutu kenn mënu laa yaakaaralal kenn mënu laa sellalal kon yow mi ñaan ci sa bopp nga yaakaar yàlla mi ngay ñaan sellal ko ñaan bi loolu ni ko mane keneen mënu caa wutu mu ne kon fa indi qarib man yàlla ku jege jege jam ñep rawati rawatina nag koo mi ngi ku sori yalla rek li dox sa ak suñu borom moy sag ñak ko top moy say bakar moy sag ñàkk a ci digali suñu borom waye ko xamne yaa ci jema ku jégé suñu borom mu ne ujibu da'wata da'i iza da'an damay wuyu wote aji woote wala ñaanu aji ñaan su fekkee ñaan na ma nee ku ñaan rek ku mu mën a doon rek damay wuyu ak ñaanam su fekkee man la ñaan kon loolu suñu boroom ñépp la ko jagleel bu kenn xeeb sa bopp ci ñaan suñu boroom tabaraka wa mu teg ca nag ne fal yastajibu lii nañu sàkku suñu borom tabaraka wa taala nangu seenum ñaan ndax man ngay ñaan yàlla ba noppi jàpp ne keneen moo lay nangul ñaan gi walla ci dara darajey keneen wala ci baaxu keneen mooy tax yàlla nangu ñaan gi kon yàlla nanguwu ko ci màggaayu boppam ak mbaaxam mais ci darajey keneen wala baaxu keneen wala cër bu keneen am ci loolu la ko nangu déedéet nee na na nga nangu ne na nga sàkku nangu ñaan gi ci yàlla rek na nga sàkku ne yàlla lii nga ko ñaan moom dong ngay sàkku mu nangul la ko jaariwu ko ci feneen fal yastajibu lii loolu itam kon lu ma ca bàyyi xel di ñaan yàlla waaye sa yaakaar ci yàlla dëgërul matul ba jagay jàpp ne boo ko ci tuddalul keneen bootul du ko nam comme nit ñi ni ñuy def léeg-léeg bu ñuy lijjanti dara bu ñu demee ca ka ko yor jàpp nañ ne buñ ne koo rek yow laa bëggoon nga defal ma nangam te duñ fa kenn du sotti moo dañ naan ko diwanu boole wala diw sa mbokka wala diw xam naa ko fokk daal ñu tudd koo xam ne nañ ne la muy def kookaay tax mu def ko loolu nag mbirum suñu borom moom ndax kooka mën am séq naag koke lu ko jaral mu lay defal dara ci turam ndax bu ko gisee da ko sawaaji ñëwoon ne fi defal naa ko nangam waaye suñu borom tabaraka taala mi nga xam ne moom soxlaalalul mbindeefam yi dara te lu muy def lu nekk ci mbaaxam ak yërmandeem la koy defe walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu loolu jàng nañ ko ci alquran lu bari lu muy def lu nekk noone ci la koy def mbaa xam ak yërmandeem ci lay def lépp du ko def ci barket kenn du ko def ci daraje kenn ndax barke bu waay am wala daraja joo am moo la ko jox kon nag bu def bu bëggee fajal nit soxlaam ne la abalaat ma barke bi ma la joxoon ma fajal ci kii soxlaam wala daraja ji ma la joxoon yow diw ma fajal ci kii soxlaam lu waay am rek moo la ko jox te la nekk fa moom du jeex kon loolu dañ ko bàyyi xel yàlla lu muy def ci mbaaxam ak yërmandeem nee na la koy def qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu waxal ne mbaaxuk yàlla ak yërmandeem kuy bég wala ngay yaakaar yaakaaral loolu yaakaaral yàlla ak mbaaxam jàpp ne koo fiy tudd rek yàlla la gën a xam say mbir ci moom te moo la ëpp yërmande ci moom moo la ëpp yërmande ci say wayjur sax yàlla moo la ëpp yërmande ci ñoom kon nag jërul ngay wut benn intervention ci moom moo tax mu ne kon isa daani fal yastajibu li wal yuminu bii nañ ma gëm nañ ma wóolu man yàlla laallahum yarsuduun ndax ñu gindiku jaar ci yoon bi nga xam ne moo jub kon ñi ngi ci weeru ñaan waaye nag ñu xam nu ñuy ñaane bu ñuy ñaan nañu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ànd ak yaakaar ju mat sëkk ca lañu koy ñaan ci ne moom rek moo nu ko mën nangul te itam dana nu ko nangul ci mbaaxam ak yërmandeem loolu kon dañ euh, koy bàyyi xel bu baax di ñaan ci biir koor gi mo xam ci bëccëg bi jamono bi ngay woor wala soo demee ba dog wala ci guddi geeg lépp rek yaa ngi ci biir koor gi kon jamono bu ne atteb koor mi ngi ci yow te bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaanu aji woor duñu ko delloo suñu borom dugal ci biir aaya yi muy waxee mbirum koor nu ñu koy ñaane kon itam koo xam ne nit ñëw na fi yow dëgg la jullit dana sàkku ñaan ci mum jullitam waaye loolu kenn ku nekk war a defal sa morom amul ñenn ñoo xam ne moom dañoo féetewoo di ñaana ñaanalaate eh, nit ñi di ko sàkku ci ñoom te ñoom ñoom it duñ ko sàkku ci ci des te itam ñaan du métier li ñuy wanaan ab ñaan kat la ñaan kat ñaan moom kat waru cee tegu mooy ku ko bëgg a def métier ñaan du métier moo tax kenn sañu caa fayu dara itam nag bokkul ak faj bu fekkee faj ngay def moom da ngaa jàng lu ñuy faje bay faj moom mën ngaa faj waaye bu dee ñaan la moom suñu borom tabaraka taala ngay ñaan te ba mu tuddee ñaan rek li muy tekki mooy yow joxe ko nekkul ci sa loxo gannaaw dama lay ñaanal li nga sañ war a laaj dara mooy dama lay jox ndax ki ngay ñaanal dalaa jox kon yow it da ko war a jox jox jox la war a doon waaye mu jox la ba bare nga ne ko nag damay ñaan kon mu wóorul ba xam moom dana jot dara am déet kon yow itam waroo woon a jot dara ndax li ngay jot day wóor ne li tax ñu jox la ko mën nga koo joxe waaye li tax ñu jox la lii mënoo koo joxee ba noppi jël loola rawatina sax nga cay dagg aw sas ne danga may jox nangam ma ñaanal la loolu de fit weesuwu ko ndax yow wóorul la ngay ñaan te sax bootul yàlla dutu ko nangu ndax day mel ne li nga doon ñaan yàlla da nga ko jaay ba noppi jote jotagoo ci ba noppi jaay ko waaw ñaan yàlla ngay ñaan xamoo dan la mayam du la may li nga ko doon ñaan nga jaay ko nit kooku kon lu mat a bàyyi xel la moo tax daal nit kii nay ñaanal boppam nay sàkku ci mbokkum jullitam mu ñaanal ko kooka itam bu koy ñaanal mu ñaanal ko ngir yàlla ñaan ko ànd ak torox moo tax ñaan gi ci gën a mën a nangu ci gule nit di defal mooy boo yëgut ka lay ñaanal te si yëgoo sax ne ñaanal la du'a an zahril xaybi waaw kooka nga xam ne kon kooka aw tagg sax doo ko ne sax jërëjëf yaa ma ñaanal waxuma laa ne di ko ca jox dara moom it du la ca laaj dara ndax sax yëgalu la ne mi ngi lay ñaan kon loolu mooy aaya bi ñu doon seetantal tey wa ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daan falyastajibu li wa liyuminu bi laallahum yarshudun wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh